seen affaire u tappale yi ñu doon def naan trouble à l'ordre public mënaluñ ma ci dara ndax musuñu maa gis ma def déclaration ne gars yi ñëw leen gunge ma bañ ma buggee forcé bu ci njëlbeen ba kay laa ne woon sama droit à la résistance ndax constitution moo ne ku ñu bëgg jaay doole am nga sañ-sañu lànk résister waaye bi ñu jaaree fi ñu jaar ba ne levé nañ immunité damaa jóg dem ne damay wuy ji kon suba li may ñaan nit ñi ndaw ñi surtout bu kenn naan damay dem kër Ousmane Sonko wala damay dem tribunal wala damay dem fii wala fële audition man maay dugg ak samay avocat jàkkaarloog juge bi ñu waxante li ñuy waxante ma ñibbi sama kër loolu jaru génn moo tax ma leen koy ñaan ndax xeex bi xel a koy xeex xeex bi xadar xeexu ko xadar mooy mujj ci xeex bi waaye li koy jiitu xel la ñiñ ko seqal rek dañoo jàpp ni mën nañ def stratégie xam nañ ni amuñ dara dara dara ci dossier bi waaye dinañu créer ay provocation ndaw ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy xër trop tàbb ci ñu mën a génne dossier ci biir dossier bi wala mun ñu mën a jaare foofu essayé naan dañuy teg loxo ñenn ñi te loolu jaru ko loolu mi ngi suñu kanam dinaa ci ñëw moo tax ma ñaan leen ne leen lii lu banaal la gàcce lay doon ci moom mu dajale li ñu am yépp ci sandarme ak alkaati ñii mu jëlee leen ci région yi fu ne yàq xaalis bu dul jeex ci ay carburant ak ay prime ñëw ba fii ñépp dëdd ko romb dem def joxi seen soxla loolu mooy doon gàcce gi moo tax ma ñaanaat ko ak kum munti doon ëllëg du dara lu ordinaire la yeggaguñu ci dossier bi kon na ñépp doxi seen soxla ku dul amul soxla na nga toog sa biir kër ñu dem defi suñu audition ñibbisi te bu ñu ñibbisee dinaa dellu si nag ci loo xam ne lu yaatu la def benn point de presse waxtaan ak sénégalais yi nag ci dossier bi parce que foofu la ñuy toll après bu ñu ñibbisee dinaa leen wax kañ la dajale ñépp waxtaan ak sénégalais ci dossier ba ngeen xam ni complot bu ñàkk fayda ba pare ay kilifa yu mag a mag a mag ci réew mi seen loxo takk ci rip te ñu am ci firnde loolu la ñu eh, jàkkaarloog fi mu toll nii loolu yeggaguñ ci li am solo mooy suñu demee def suñu audition ba ñëw nañu seetaan suñu gaay fu ñuy mujje nañu seetaan fu bët bët di mujjee gi wante wandentam ndax sàcc ndënd yomb na trop waaye fu ma koy tëggee loloo jafe ma baamuwaat ne leen bii bi mënuma cee dem kaso dossier bi mënuma tere nekk candidat 2024 bu dee nag ci loolu lañu bëgg a jëm lii ngeen di ruumanaat li leen mbir mi jaral ak xeex yi ngeen di waajal foofu lañ koy xeexe waaye du léegi moo tax ma ne leen bu leen yàkkamti jamono jële def naa benn live ne leen xeex kenn du ko xeex te ñoragul te ñoom ci seen stratégie ci loolu lañu ne waa ji xam na ni jeexal na takk takk takk biir njabootam sax tas na mil lu dul ñi muy fay xaalis ñuy wër ci télé rajo yi di saaga amul kenn kuy nit ku baax koo xam ne tey mi ngi ci biir njabootam sénégalais yi dëdd nañ ko wan nañ ko gannaaw te ñaari élection yi fi weesu passé na ko ndax ku jógee quatre soixante cinq pour cent tey nga nekk quarante cinq pour cent xaw ma quarante six pour cent jeexal nga takk ci réew mi moom loolu xam na ko moo leen ko gën a xam yéen ñëpp waaye ku mu yóbbaale la bëgg leen ma bu baax de dama leen di wax waxu xel fi mu ne nii dañoo nekk ci phase guerre